bokk yi jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jëggal tomb bi ñuy fàttali fas yéene fàttalante tey euh, mooy li nga xam ne moom la ku tedd ki Sëriñ Tuubaa digle woon ci ayu bis bi ñu weesu muy bokk yi daje fi barab yu fasantikoo fàttaliku fa suñu boroom tabaraka wa taala ñaan ko fa jàmm ju tasaaroo ci réew jullit yépp yàlla na ko yàlla nangu waaye yónnee ñu nag ci jamono yii li nga xam ne bu waxtu masaan jot des na ko séentu te dese yaakaar lu bari muy taw jàmm yàlla na yàlla nangu ñaan yépp ñu fàttali ne bokk yi taw yàlla rek moo ko am yàlla mi nga xam ne ku dem ba jàq walla mu jaaxle walla mu tiit wala ñu bëgg koo néewal doole ñeenti tolluwaay yooyu yépp ku ca toll ca dëgg-dëggi baat yooyu ma jëfandikoo xelam dana dem ci yàlla lum néew néew dana ca dem ndax bu wëree wër suuf si xamut kenn koo xam ne lii moo ko ko mën a teggel wala su ko ko mënee teggalit nu muy def ba mu xam ne mi ci xat-xat yi ba mu mën ko koo teggil yàllaa fay sës kon bokk yi tee lu nekk bala ñoo àgg ci fenn fi ñu fob yàlla teg ci suñu kanam di ko xool te di ko wétti ndax yàlla moom rek mooy wéttal moo mooy koo xam ne fu way nekk kenn moo ko fa ñaareel fu way nekk ñaar moo leen fa ñetteel fu waay nekk ñett moo leen fa ñeenteel fu waay nekk juróom moo leen fa juróom benneel fu dara amagul sax moo fay nekk fu dara nekkatul moo fay nekk yàlla moomu nit ñépp di ay jullit nangul nañ ko ne moo leen sàkk moo leen moom waaye xanaa bu leen moomee sàkk leen am na lu tax mu sàkk leen loolu tontu woon na ko laata ñu ko koy wax laata ñu ko koy laaj moo ne ci alquranul karim ñun ñi di nit ñi ak ñeneen ñi nga xam ne ñu néew si ñun ñoo leen mën a gis muy jinne yi waaye ñàkk leen a gis tekkiwut seen ñàkk am li tax mu binduñu du dara du ñuy togg ay dab di ko yët ñuy dajalee alal di ko yët di ko defaral lu nekk lu ñuy tànnal suñu bopp yaakaar ne dana ko bëgg déedéet li tax mu sàkkunu mooy ñu toog ci kaw suuf saa su nekk ñu di ko wan ne say jaam lañu tënku ci ay ndigalam tey bàyyi ay tereem loolu rek moo tax ñu ënd nu fi kon ginnaaw ñun xam nañu lu tax ñu ënd fi yàlla na yàlla dox suñu diggante ak càggante ba bu ëllëgee suñu laajee lu ma leen fa doon doye du ñu am tontu yàlla ñu ci yàlla musal te dimbali ñu ba bu ñu ko xasee ba xam ñu teg ca suñu tànk bu dee fu muy dem lu la su dee lu muy laal la ñu tekki suñu loxo bu dee lu muy xool la ñu tekki suñuy gët bu dee lu muy wax la suñu làmmiñ bañ caa jógati bu faw kon su yàlla jiglee ne nangam la ñu fiy doyee mooy ñu jaamu ko fi nañu wër ne payoog jaamu gi mi ngi ci sot mi ngi aju ci sotti jëf ji moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di firi ci xadis ne képp koy liggéeyloo balaa aw ñax ñaqama fendi na nga ko jox la nga séqoon ak moom ca ba ngeen di dëlante soo ma defalee nangam ma jox la nàngam yàllaa ko dàq ñépp kon mbokk yi suñ demee ba nga xam ne jaaxle nañ ci lu bari lu yàlla di joxe mu jafe si nun ba dañ ciy sonn loo ba yaakaar tàmbalee tas yàlla soog a ñëw war nañoo seetaat sunu bopp ba xam li taxoon ñu indi ñu fi ñu ngi ca wala déet am na ñu bari ñu ci nekkut de ñu bare baree baree baree wala buñ ca nekkee it rax nañ koo rax a rax ba mënu koo xàmmee ndax ña ca wala nekkatuñ ci ndax am na lu ko sëriñ mag bi firee woon ci am mbindam am na bëyit wi muy wax ne mi ngi sant yàlla lu tax yàlla daf ko beral loxo lu tax mu beral ko loxo daf koo booleeg da koo marale ba xamatut mënatut lu dul liggéeyal ki yàlla joxañ ne nañ topp ci ginnaawam te ku ko topp yàlla nga topp te kooku mooy far ak ñàkk mooy far ak ràgg dal na ci marale googu mu ko marale ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, la bëgg nit ñi xam ko ba man ko topp moom ni ñu ko toppe dal na ci biir bi mu koy topp nag yàlla indil na ko la mu bëggoon lépp li nit ñi wuti day toog ñu ñu ñuy rang di ko ko jox di ko ñaanal mu yàgg fa ñu booleel ko ca ak jooy loolu nag laaj mag ñi ñam ca sédd ne leen yéen kat ñu ne may bëgg a bett bett ngeen ma ba noppi sax ndax lii ma nekk ni mettee xaw moo ne da ma ci fekk seen yi waaye nag yéen it bett naa leen ndax ba ngeen ma fekk see amee ngeen ci loo xam ne yaakaaru leen ko woon waaye yéen it ngeen ma ndax ba ma leen koy joxe xaw ma woon ne nii ngeen koy def noonu ngeen koy liggéey lijjante noonu ngeen jëfandikoo waaye dinaa leen bett bettaat nag bett ngeen ma ndax xaw ma woon nii ngeen koy jëfandikoo mooy daf caa teg ne xam naa ko yorub yóbbal di dem di lekk waaye lekk di dem mënta nekk di lekk di dem moo mën a am moo moo jaadu su nit ki xëyee di dox ba naaj wi tàng añ jot mu tekk ay mbuusam ak i gutti ndoxam mos tuuti ba biiram dëgër mu wéer aw yoonam waaye ñu jox la ab yóbbal nga fas ko yéene lekk ba mu jeex bëgga bëgg lay dem kooku nërta dem mooy fi mu waxee ne shakartuhu is xassani id xassani li xidmati lmaaxi sani daa xidmatin fi laalani lahu wa fakka walami lahu xitaabi daaiya lépp di ko séddale jox ca ay cir lam ko jubloo mooy ab yóbbal di dem di lekk moo tax alxuraan lu leen dal ngeen wër leen ko saafara te jàngoro yaa ngi di metti xool leen seen bopp xool leen seen bopp comprimé yi nga xam ne dañ ko defaroon di ko faja bopp bi metti daa dem ba yàgg mu périmé te yëgu leen ne périmé na ngeen di wéy di naan comprimé yi mu jural leen jàngoro jàngoro yi ñàkk taw buy taw taw bi day ëpp ba ay alal yàqoo ca loolu taxul ñuy wax taw bi bi ñuy bëgg ñun ñun nit taw bi ñuy bëgg mooy taw boo xam ne day wàcc ci jàmm di ñoral liñ bëgg mu ñoralal nu ko ci kàttanu suñu borom ak coobareem ñu jariñoo ko waaye su fekkee buy ñëw day ñëw ba ne gàññ ba ay alal ya bari yàqoo ca ay nit ñi bari faatoo ca walla bu ñëwut danaan tekk ba lu wowoon lu tooyoon wow loolu yàlla ne nañ seetaat suñu bopp ndax ñàkk taw rek la taw bu amut ñàkk tàmbali naa juddu ndax am na ñoo xam ne ci li taw bi ñoral ci lañ yaakaar a jaay am dara su tawut duñ mën a am dara moo ne ña leen di nekk di leen jaay it suñu amee xaalis ñooñu suñuy jën amul luñ jaay luñ duñ jaay kenn lañ yoroon day def ci seeni loxo moo tax euh, waroom xam-xam yi wax ne taw moomu ñuy ñaan yàlla saa su nekk te yaakaar ci lu bari ñaari xeet la am taw boo xam ne day saxal ñax mi di ñoral tool yi ak taw boo xam ne day suuxat ruux di dundal ab xol bi nga xam ne bii mooy suuxat ak ruux di dundal ay xol ku ca yàlla dimbale yàlla nañu ci yàlla dimbale ba mu koy tawlu di sébbulu mën naa am lu ëpp li muy am ci taw bi bii gàncax bii ga bii ñoral gàncax bi ak di ñoral mbay mi ndax taw buy suuxatu day am njariñu àdduna ak njariñu àllaaxira yàlla nañu ko yàlla defal te loola fa ko nit di jëlee mooy jaar ci ndigalu suñu borom yi te dëkk tuub yim xam ak yim xamul te lu mu ca xas ba xam woon ko gannaaw te dutu ci dellu si mukk ni sartu tuub demee su boobaa it yàlla nee na ci alxuraan taw bi nga xam ne ci la ñuy yaakaare mbay mi day yomb lool ndax mi ngi wax ci alxuraan ne waa Makka lay waxal booba lam anna ahlul qura wala la wër Makka suñ maase woon gëm yàlla te ragal yàlla sëg yépp yàlla dana ko ubbi mu jóge ci kaw suuf di génn ci biir suuf si ak di wàcc ci kaw asamaan te day barkeel lu ca way am lu mu tuuti tuuti danaan gàññ waaye nag bañ fi bàyyee li yàlla moom jox ko keneen mu war ko moom ñu bëgg a jëm feneen bàyyi fi yàlla yàlla bu bu téyee loxoom rek musiba am walakin kaddabu fa axaznaahum bimaa kaanu yaksibuun misaal na it benn dëkk boo xam ne daa nit ñi dafa wut si lu nekk nee na ñu xëy xëy jàngoro yi ñàkk tënku ci pas-pas bi suñu borom wax ñu tënku ca dugg leen yàlla nañu ci yàlla musal nee na yàlla yónnee leen euh, ndima loo xam ne ñépp a ca xotti sol ndimul xiif ak njàqare lu sax lu leen ko teg lañ joxe woon lañ leen dalal la ci tam xaalis booy mën a jënd ci àdduna bi boo ko joxee xaalis boobee lañ lay delloo la tam soo joxee seexa seexa lañ lay delloo soo joxee dollar na delloo ma ñu delloo la ay cent soo joxee euro delloo ma ñu delloo la ay centime yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu dama leen koy xëccal ba mu gën leen a jege su ngeen gisee yii mu am ci kaw suuf bu leen talalagoon yàlla ñaan yàlla loxo di ko ñaan ndax du nangu waaye dem leen ba saafara loola nee na su ngeen demee ba gis ne diggante jaay ak jënd genn maanu nekkatu ci te jaay ak jënd mooy àdduna bépp am na fu ñuy jàngalee ci jàngukaay yi li ñuy jaay ak jënd ak nu ñuy yore li ñuy jaay ak nooy jaay yow nee na loolu saa bu ñu nee ci xel alkayli wal maanaam yow sooy jaay nit ki dangay fexe ba mu gaaw a daanu soo jënd ci moom da ngay fexe ba du daanu mukk soo koy jox li nga koy jox day néew bu lay jox li mu lay jox day bari loolu yàlla atte woon na seenoon atte ba noppi waylun lil mutaffifin alladina ida ktaaluu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun ala yazunnu ulaika moo tax yonent bi ne woon loolu saa boo gisee mu bari te loolu moo tudd lépp loolu lépp boo ko boolee daayira boobu mooy daayira bi ñuy wax business rek lépp loo xam ne daa aju ci service commercial ngay jaar rek bokk na ca carte yi ñu fi doon waxtaanee ak bien mal ak yi ñu doon waxtaanee lépp day dugg ci loolu ndax kenn ku nekk la muy am day fexe ba muy gën di bari rek yonent bi nee na su boobaa su taw amatut dem leen lijjanti ci loolu ba mu jaaraat yoon moo gën a gaaw moo gën a gaaw di jàng ay kamil moo gën a gaaw di daje moo tax mu ne su boobaa suñ ko defut dana leen yàlla dana leen yónnee ak ñàkk bu kenn mën a saafara mën nañuy am de waaye kenn ku nekk la muy am du ko doy nu ma koy def lay wax bu dee nu ma koy def nag gisatu ko moom moom la alquran di wax ne laqad axadna ala firawna bissinina wa naqsim min adama min athamarati laallahum yadakkaruun natt woon na ñooñu ñàkk gu metti ak bekkoorub tool ay mbay ndax lan ndax ñu diri sol gannaaw ne lan lañ def ba yàlla def ñu nii nee na boo benn yàlla dana dana ñu yónnee ak ñàkk kenn tal kenn ak it jawru sultaan autorité yoo xam ne impunité la ñuy liggéey lañuy ñuy dund soo amee ndey ñu fat la soo amut ndey ñu tëj la ci kaso bi wala ñu rey la sax wala ñu génn la réew loolu yomb naa gis jawru sultaan lu yaatu la yonent bi limale na ko ci ak ñàkk ak buurub adduna bu jeng daan ne su boobaa it mën ngeen caa gis yaar mën ngeen ko mën ngeen caa gisaal lenn loo xam ne business moo koy xañ wàllam muy ñàkk fonk asaka ndax asaka ak ñàkk lay nuru alal joo xam ne yaa ko liggéey ba am ko ñu ne la danga ci naan texeet nangam sañ bañ joxe ko te ñi ngi koy jox duñ la xam doo leen xam loolu it seytaane mën na cee dugg ci ab xool ba sàggan sàggan loo ci nit ñi ba kenn dutu ko def nañ ko daan def nee na bis su may waral it ñuy dem ba yàgg ñu sàgg tàmbalee sàggane asaka ndax koo xam ne ay taxe da ko topp chiffre d'affaires di wàññiku tax ko dugal ko ci buy peeseel nit ñi day fexe bañ gaaw a daanule mu jël ko moom su leen di peesal day fexe bu leen di fexe leen di peesal di jox day fexe ba du gaaw a mu jël mu jox leen maanaam mu jël ko moom. maanaam li muy su dee jënd jaay day fexe su muy jël ci def rek su jaay bu defee ñaar ak ñett rek mu daanu mu def nee na suñu demee ba tàmbalee sàggane asaka yi yàlla moom duutu taw fa te taw boo xam ne day màbb kër yi di yóbbu tool yi ak oto yi wax dëgg yàlla bañ a taw ko waxuma la nag kàkk bañ a taw ci sama daal ne nag su boobaa nit ki moo tax ñuy taw waaye nit su boobaa barke bàyyi ma yi ci lay taw lool nit su demee ba ci su ma def tawassul taw bi ci bàyyi ma day jaar ndax ñu am luy lekk ñoom ñoom yaakaar yàlla day am ci kenn nit soogal ci saxle dara léeg-léeg mu dem ba yàgg ñaan si amal sax wala yaa ngi xiin te mbokk yi genn wàllu na li tax muy taw nangam ak waaye yooyu mën naa daje yooyu fu nit ñi jëlee yàlla leen moom ñoom ñëpp te faalu li ma ñëw su ko neexee bañ tam takk bu nekk bu ñu bëggee takk rek ma ñu ne daan dem ñu ne daan dem naa mën naa jooyoo bañ leen a bañ a takk man leen a bañ a takk ndax buñ la takkee yàlla la te buñ la leen neex leen daal kon mbokk yi xam ne nekk na koo taw wala buy tawee tam du maase wala su maase yi day dem bañ yaakaar ko mu ne xel sëpp wala mu yeex a ñëw bañ yaakaar fa ba ñu bari fi ñu wóolu ci loolu suñ ko dee jàmbat yàlla it nañ jàmbataat suñ bopp ñun dugg ci suñ biir faj jàngoro yi jàngoro yi ba ci jëkk mooy tuub ndax waroom xam-xam yi nee nañ musiba moo gis mu wàcc ci aw nit bàkkaar moo leen ko teg waaye bàkkaar ni tuub mel ci moom mooy ndox mel ci sawara fu mu ko fekk daf koy fay giimal ko sooyal ko yàlla nu yàlla wàcceel ndoxum jàmm te ñu fekk ko tam bañ a doon suñ bàq bàq bàq bi ñuy dence te it e, bañ ñoo gis la suñ bopp ba suñ nee su ngeen génne yàlla dana taw xaalis ñu génne taakaal mu taw xaalis ñu bañ a wax ne man maa ko waxoon ñu ne alhamdulilah rabbil alamina gannaaw yàlla taw na xaalis tey rek dem jariñoo ji ko waaye bokk yi ab ayab alxuraan ngi nii boo xam ne bu yéeme la boo xam ne saa su nekk dañuy dajeeg moom yàlla nee na tey ngeen fab yépp delloo ma ko rek xam ne man maa man maa xereñ lu ne xam naa ko dara du ma raw ruddu ila llahi mawlayahum alxaq ala lahu alxukmu wa huwa asraul asraul xaasibin daal di laaj ab laaj boo xam ne kii koy mën a tontu euh, ku ca musta jaar mënu koo tontu waaye ku ca mas a jaar dana xam ne wax yàlla jam doon wax mu gis ko la wax te gisagu ko moo koy raw mën na ko raw aaya boobu daf caa teg ne qul man yunajjikum min dulumaati albarri wal baxar tadcuunahu tadarruan wa xufyatan la in anjaytana min haadihi lanakunanna min alshaakirin nee na léeg-léeg nit nekk ci ay jafe-jafe moo xam mu ne ci kaw suuf si di dox fenn fu nekk mu fëgg fu mu të mu dem dëkk ak dëkk fenn fu nekk mu fëgg fu mu të mu ne nag yàllaa fi sës ñaan yàlla yàlla wuyu ko defe ne bu ko mayee lam koy ñaan dana ko sant bu génnee sant keneen yàlla ne qulillaahu yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun qul huwa alqadiru ala an yabasa alaykum azaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyaan wa yudiqa baadakum basa baadin undur kayfa nusarrifu al ayaati laallahum yafqahun kon misaal yu mel noonu lu bari la misaal nañ ko ci ku dugg ci avion loolu ay alxuraan la jafe-jafe yi bari lool ci kaw jaww ji ñépp tiit lu way xamoon dem ca bam mu yàgg yëf yi ne rimm ñu ñu ne duñu ne alhamdulilah waaye dinaan jëriñ ah pilote bi jàmbaar la pilote bi jàmbaar la kat te bokk yi pilote yi ñaata nit lañu rey pilote bi bi nga xam ne nee nga moo la sowee bisi bu set pilote dee deewaale mbooloo ma bari kon pilote mënul dara appareil yi itam baaxewuñ baax koo xam ne gii da ngay wóolu compagnie bi di bañ bee ñépp a yam nañu yaakaar yàlla bu ñuy yëg ko wàcc rek waaye yàlla nee na woon ab taw bi ñuy soxla ba tax ñu dajaloon dajaleloo nit ñi waxoon naa sànq ne misaal mi yomb na wax na ko ci alxuraanul karim waxoon na sayyidina nuuhin alayhi salaam ne ko neel nit ñi Euh, li leen dal kuñ yaakaar ne moom la seytaan ne ko yow la mu ne ko yow xam nga ne man la xam naa ne it xam nga ne man waaye demal waxak ak nit ñi mu génn ci nit ñi ne yaa wala wala qultu astaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursil samaa alaykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa lakum jannatin mooy ay tool wa lakum anhaara jannaat mooy ñi nga xam ne dañuy dañoo sukkandiku ci taw bi bu tawee ñu ji ba ñorle farmanku dellu seen kër toogaat di xaar taw wa yaj'al lakum anhaaran mooy ñi nga xam ne dañuy roose alxuraan bàyyiwul dara ñooñu ñëpp nee na suñ wëlbutikoo jàkkaarloog yàlla woon ko ne yow la yaa moom taw yaa moom suuf yaa moom yaa moom bàyyi ma yii tax ngay taw tuub nañ tuub gu sell yàlla yonent boobu sayidna Nuux nee na su ngeen ko defee yàlla dana wàcce ab taw midraaran su boobaa faatu gu bari gi dana wàññiku faatu gu bari gi su wàññikoo kenn ku nekk ñii faatu ñépp doomi diw la ñu doon wa yumdikum bi amwaalin wa baniin su boobaa ordonnance wàññiku bari na alal yoo xam ne ordonnance ko yóbbu su boobaa wér dana am su ngeen su ngeen tuubee yàlla dana wàcce mu taw seeni alal di ñoŋ ndax dootu leen jënd ordonnance dootu leen saraxal dootu leen dëj waaye da ngeen amul gu fi nekk te mooy dee dootu bari yàlla nañu ko yàlla defal waaye waxoon na itam ci làmmiñu sayidna Huudin alayhi salaam moom moo génn ne yaa qawm astaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa alaykum midraaran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum néew doole gi jullit yi féetewoo gi féetewoo nga xam ne adduna bépp jullit yi ñoo féetewoo néew doole ci lu mu mën di doon ci koom-koom ci lu lu ñu tudd rek jullit la ñuy mën a tudd Seydina Hudin alayhi salaam nee na woon yàlla ñu ko nettali su ngeen dëkkee woon tuub benn yàlla dana leen wàcceel ci asamaan si ndox mu bari ngeen di bay ndax ñu ëpp doole ci adduna bi mbay moo leen tax a am doole te su boobaa da am doole joo xam ne fu nit tegati ndawal ngeen teg fi pomme de ci peggam te su boobaa diine gën a yaatu gën a am cir di ko yàlla jox waaye bokk yi julli gi ñuy wax julli mbaaw ci sunna yu mag yi la bokk lu tax duñ ko limaale am nit ñi dañoo dañoo rus di sëgg ki sigg ci kanam suñu borom nit ñi di gis nañ génn ku ko man ci jàkka yu ndaw yi nga xam ne sañ na maa wax ak ñoom ñu woote fa salaatul istisqa ba ba ko kilifa gi di tere na bu ñu ko fi defee te daa àggu ca moom rek waaye lu baax doo ko ñor yàlla na fi gën a yàgg te wér jullit yi doo nga ko ñor njëriñul taalibe doo nga ko ñor te moom ci boppam baykat la fenn fu nekk ñi ngi ko fay wootal ay tool na ko ay waajuram daan defe ak i maamam nañu ko betal ne ko jullit mbaaw jullit ci àdduna bépp ñu ngi koy def di ci am ndam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko ci nekkam te mënoon naa tallaay loxoom rek na yàlla yàlla yàlla wuyu ko waaye day wane aw yoon xamoon naa ne def ma sa jóge bés su fi jógee bés nag andoona jullit yi def seen diggante ak yàlla yàlla di leen wallu loolu la doon wane jaaxle wutoon ci dara xamoon na lépp waaye ku fi des ba faw la te dafay war a bàyyi aw yoon wu ñu koy toppee jullik mbaaw mooy salaatul istisqa salaatul xusuuf ak salaatul kusuuf yooyu yëpp bu ci nekk sallallahu alayhi wa def na ko jullit yëpp ña nekkoon ca dëkk ba ànd koog moom fenn fu jullit nekk dañ koy def ba jamono tey jii te dafa mel ne dañ koy nëbbu sëriñ bi wala dañ ko koy bañ a wax ñi ko mën a jot nañ fa daal dem ne ko salaatul istiqa sunna la te bari bokk yu ñuy woote yoo xam ne kenn mënu koo layal ci diine luñ mën layal ci diine nag kenn mënu ko fa bàyyi di wuti leneen ak di raasaal loolu dañ ci sa kër ci sa biir wala di mënut a weesu di génn ci mbedd am ko ko yore di ko ñee ak di ko di sa ñaaraatu ak di ca maxal yàlla yàlla na yàlla defal tawal ndoxum gàmm tam barkeel te la ñu ñoral ñu bokk ñu koy jëriñoo te bàqu nawetu ren bañ a doon bàqu kenn si ñun yaxfirullahu lana wa kenn kuñ xam wala kuñ ñu xamal yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimin